yow mënoo ñëw yow. Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly ngi nii président groupe parlementaire. président Abdoulaye Wade ngi noonu. Dakar Gorsa noonu. addina bi Gorsa ngi noonu. dëj rek Abdoulaye Wade.

di sama rak di sama xarit di Papa Diop. Papa Diop euh, mi defaguma parti. ne Papa Diop mii bi nu yàlla boole ñuy xamante booba defaguma parti. dama daan jóge université. ne booba dama daan jóge université. su ma demee su ma fa su ma demee su ma fa rombee. ne taxaw ci bureau. nee ci biroom moom papa Diop nee ñu waxtaan. keroog ba nga xamee ni créé naa parti bi. nee keroog ba nga xamee ne créé naa parti bi. dafa bokk ci ñi njëkk a jóg. nee papa Diop dafa bokk ci ñu njëkk a jóg. ne dañ may jàppale. nee ñëw nii dañ may jàppale. damay wax toujours ni. nee damay faral di wax toujours ni. woon ay wax rek. nee du woon ay wax rek. daf ma jox enveloppe bu nee papa Diop toog daf maa jox enveloppe bu xaalis. daf ma koy dimbale. nee wax ma ni daf ma koy dimbale. ñu nekk ci parti bi. nee ñu bokk nekk ci parti bi. mu nekk militant. nee papa nekk militant. nekk responsable. nee nekkit responsable. ba ñu ràññee ko. nee ba ñu ràññee ko. nee ndax rek liggéeyam moo tax nee looloo tax ba ñu demee nee ba ñu demee ba nee ba ñu demee ba gañe pouvoir bi ma ko sedd ko yi ma nee ma seet Papa Diop mii sedd ko cër yi ma ko sedd yëpp yor ko yor bu rafet nee Papa Diop yor ko yor bu rafet nee yore ko ak dignité ne ak courage. mbokk yi ngeen baal ma. ne mbokk yi ngeen baal ma. parce dafa xaw a mel ne que ndax mbir mi kat dafa mel ne dafa xaw a mel ni meeting. te meeting te nag fii meeting indiwu fi. xëy na parti bi moo toll noonu. ne xëy na parti bi moo toll noonu. ba mënuloo noo daje fenn. te waxtaanu nu. ne te waxtaanu nu. nee ci mbirum parti bi ak mbirum réew mi mais li ma nee waaye li ma fi indi nee d'abord moo di taaye fi jóge nee moo di taaye sàmb mi fi jóge nee nekkoon directeur de cabinet mooy koo ne xam naa ko nee muy koo xam it xam naa ko nee ndax daf ko daan yónni ci man mu nekk militant nee mu nekk militant Papa Diop nee nekkit ku jege Papa Diop ma xam ni kooku bu fi jógee. nee ma xam ni kooku bu fi jógee. papa am naqar. nee papa Diop dana am naqar. loolu moo tey. nee tey jii loolu moo ma fi indi tey. xamal ko ni. nee ngir xamal ko ni. comprendre naa naqaram. nee comprendre naa sa naqar. c'est vrai que ñun jullit. nee dafa tool nag ci ñun jullit. yàlla sunu borom. wooyee kenn ci ñun. ne bu buur bi subhaanahu wa taala kenn ci ñun. nga xam ni moom li mu décidé kenn mënu ci dara. nga xam ni moom yàlla li mu décidé kenn mënu ci dara. du lu ñaanal ko. des nag lu dul mën koo ñaanal. konte nag. ne nag. maa ngi koy jaal. ne maa ngi koy jaal. directeur de cabinet. nee directeur de cabinet. nee di xaritam. nee di militant. nee Taye Samb. nee di ko ñaanal it. waaye ci biir loolu. waaye ci ma jaal ko ci njabootam. commencé par madame Pape nee tàmbalee ko ci madame Pape Diop. nee ak mbokk yëpp. ne ay nijaayam ak ñëpp. ñu ngi leen koy jaal. nee ñu ngi leen koy jaal. di ko jaal mbokki taaye sàmb ne di ko jaal mbokki taaye sàmb yëpp tamit. di leen xamal ni la bokk. ne leen xamal ni taaye ci ñun la bokk. kon nag bu demee. kon su demee. c'est lu jaadu la. bu ñu ci dëj bi. luy militant nee lépp luy militant wala ngay responsable. nga ñëw fekke nee nga ñëw nag fekke ko. nii ngeen ma teertoo sax. nee nii ngeen ma teertoo sax. mën naa wax ni daf maa bett bettu mën naa wax ni daf maa bett bettu ma. ndax euh, defoon naa ni day woo ay parents rek ay ndax foogoon naa ni dafay woo rek ay ñi nga xam ne ñoo bokk ci moom ñuy njaboot ak mbokk yi ak xarit yi rek. militant yi ak responsable yi. ne waaye may yaakaar ni militant yi ak responsable yi. bu ñu ko déggee. ne bu ñu ko déggee. dañu ni mënuñu fee ñàkk teew. xam naa dañoo wax ni mënuñu fa ñàkk teew. ndax ñoom itam dama leen gëj a gis. ne ndax ñoom it dama leen a gëj a gis. ne a gise. waaye man maa ngi gërëm waa Sénégal. ma waaye bisu tey bii. maa ngi ciy profité ngir gërëm waa senegal xaw ma lu defal Sénégal. nee man président xawma lu ma defal Sénégal. nee xaw ma man lan laa defal sénégalais yi waaye dafa mel ni lépp sénégalais yi ñoo ko xam. nee waaye. ne maa ngi gërëm Sénégal gépp ne fi ngërëm mën a yem. ñëpp bàyyiwuma kenn. président Pape Diop ne mi ngi nuyu ñëpp bàyyiwul kenn. maa ngi beral nuyoo nag président Abdoulaye Wade. ne mi ngi beral nuyoo son excellence président Abdoulaye Wade. président buy jóg di jaale. muy président bu xam ne day jog fëgg ay dàllam dem jaali. Sénégal bu ko xamee ci moom la. Sénégal bu ñu ko xamee ba koy jëfe ci yow mii la jaare euh, dinaa ci dellu si dinaa ci dellu si waat. président Wade jàngal ñu ci lu bari nag. maître Abdoulaye Wade suñu président bi lu déedéet du bu Sénégal mondial la jàngal ñu ci lu baree baree bari. bu weesoo li ma wax léegi. bu weesoo li ma wax léegi. gis président bu gouverner pendant douze ans. gis président bu xam ne gouverner na pendant douze ans. kenn gisul xaalis bu mu denc. kenn gisul xaalis bu denc. yorul ay compte bancaire ay milliards nekk yorul ay compte bancaire ay milliards nekk ci. ku mel noonu la sox Sénégal soxla. ku mel noonu la réew mi di Sénégal soxla. man quelquefois. man quelquefois. bi ma wëree Sénégal. bi ma wëree Sénégal. gis lim fi def. gis moom mii toog di maître Abdoulaye Wade li mu fi def. dama am xalaat ma ni Sénégal daal. man de dama am xalaat ma ni Sénégal daal. sociologue yi. sociologue yi. war nañu def étude. war nañu def njàngat. sur quelle base la ñu élire président de la république. ci yan anam ak yan jikko lañuy ñuy fale. ndaxte. qualité yi ñuy fale président. ndax jikko yi ñu war a fale président. yépp mu ngi ci moom. lépp mu ngi ci moom. li ñuy faral di tudd. li ñuy faral di tudd. mooy les réalisations physiques. mooy réalisation physique. maanaam aéroport bi mu commencé. aéroport bi ñu ko ubbeeg. ak li mu def yi ak li mu def lépp. waaye jikko yi. waaye jikko yi. moo ëpp solo. mu ëpp solo lool. parce que peuple jikko la. ndax peuple jikko koy yor. peuple bu la gën jikko. peuple bu la gën jikko. moo la ëpp avenir. ëpp avenir. kon boog loolu war nañ ko jàngaat. loolu war nañ ko jàngaat ci moom mii. tey nag ñëw bi loolu. ñëw bi ñëw bi loolu laa gën a bëgg ñu retenir ko ci. loolu laa gën a bëgg ñu retenir ko ci. que kii Sénégal dootul am ku mel ni moom. te senegal dootul am ku mel ni moom ëpp na université ëpp na académie jagle suñu borom la. yàlla de moo man lu nekk. yàlla de moo man lu ne. na nañu ñaanal réew mi. nañu ñaanal réew mi. waaye yombul. waaye yombul de.